Dakar People yi tey nag ñu ngi lay nuyu fay wasalaatu wasalaam ala rasulillah Seydina Mouhamad ibni Abdallah wa ala wa sahbihi wa sallama taslima amma ñu ngi lay fay. liggéey liggéey am waaw am na ndax fi lañ ko fekk ndax fii Sénégal yàlla daf ñoo jagleel ñu am fi ay mag ñu baax ñoo xamante ni. ba ñëwee jàng alxuraan gëstu alxuraan dégg alxuraan yàlla may leen xam-xam yàlla wax ci alxuraan ne lépp lu ngeen soxla ak lépp lu ngeen ut dem leen si alxuraan ñoom nag yàlla defal leen ci tawféex ñu teel see dugg xam si mbiri ren alxuraan indiwul fenn mbiri ren ak yooyu noonu waaye ñoom yàlla moo leen yàlla moo leen ko baaxee daal pour ñu si naan di jàppalanteeg jàpp doomu aadama yi fu ñu mën a toll wax dëgg yàlla. liggéey laay de su ma la laajee ndax liggéey am na mais mooy ndax nit mës na ñëw ci yow la liggéey dindi ma. loolu moom chaque jour nga gis ko chaque jour nga gis ko ñëw ne la damaa nekk si ay jafe-jafe wala dañ ma def lii wala dañ maa def laa waaye boobaa ñun moom suñu lépp alxuraan la rek ndax alxuraan moom bàyyiwul dara soo ñëwee danañ la jàppale jox la loo xam ne boo ko sangooyee dafay dañ parce que doomu aadama yi cat moo leen sonal ak làmmiñ yooyu moo nag ba nga dajee koo xam ne mën na ci dara parce que léegi fu mu toll saa bi ñuy woote mbiri sëriñ dafa bëri te chaque jour damay wax ne du nekku ne ku jàng alxuraan rek moo mën a def mbiri sëriñ parce que lu ñuy jàng la rek xam nga pour xam biddiw yi xam tomb yi xam lépp bu la nit ooyee nga mën a xam si loo koy seetal ndax doomu demee yi dañoo bari suñu leen bind ñi leen bind ci suuf ñii si ndox kon nu ma ko waxee woon sama première émission dégg nga yooyu yëpp nit ñi dañ ko a xam dañ ko war a gëstu ba mu leer waaw maa ngi ciy yëngu waaw bu ñu yàlla dimbalee ba nga ñëw bu ñu la xoolee rek mën nañoo xam say soxla mais nag bu ñu yàlla bu yàlla defee tamit nga nekk distance bu sori tamit man bu ñu xoolee sa biddiw rek mën nañoo xam sa sarax doomu aadama moom ni ku nekk mën nga xam sa sarax di ko def boo ko defee rek da nga génn si jafe-jafe yu bari. dëgg la ñu def listixaar. waaw man damay def listixaar mhm. damay xool soo ñëwee nii mën naa laa xool si course. waaw wàllu faj moom li ma la wax li ma la wax rek man chaque jour sama wax yëpp dama lay wax si alxuraan ndax yonent bi nee na man raa minkum munkaram fa in lam yastati fa bi lisaani fa in lam yastati fa bi fa zalika adaful iman mu ne bu nit ki jaaxlee ba ñëw si yow mu ne na ko dindi ak sa xam-xam su dem nga dindi ko sa loxo su dem ma dem ma mën da ñàkk nga bokk ak moom naqar bi fa bi mu ne euh, bu mën dëkkee nga siiwal ko. nga kii loolu moo tax ku ñëw si daal na nga dalal xelam si lépp te nga ngàndaayoo lépp tamit xeeti xam-xam yëpp nga ngàndaayoo ko daal parce que xam ko moo gën mhm. waaw loolu moom dañ ciy liggéey loolu moom loolu moom si xam yi njëkk a mën sax yooyu si la bokk ndax ndax fi ñu la moo tax. Mhm. waaw loolu moom rap ak lakk am na ñu bëri ñoo xamante ni euh, ay moodu-moodu yu bari yoo xamante ni bu ñu amee kii yàlla ak man la wax dëgg yàlla waaw ndax nekkoon nañ si ay jafe-jafe wax dëgg yàlla chaque jour du ma taay si di ko wax mais léegi wuruj bi dafa bëri léegi da ngay jëflaan technique yi boo paree li ngay wax ak li ñu lay wax ak après li ngay gis du nekk benn waaye nag bu fekkee ne yàlla la a jug moom yooyu doo si sonn doo si am benn coono wax dëgg yàlla du la déranger sax. waaw parce que doomu aadama yi si jëm boom cat moo leen sonal ak làmmiñ da ngay gis koo xamante ni buntu bu mu fëgg mu dëgër yëpp mu dem ba yaakaar na sax fekk cat rek moo ko sonal te cat moom wax dëgg yàlla li muy def si nii dafa bëri su la sonalee ba sonal dafa dem ba si kanam indil ay feebar sax dégg nga su ko defee mu lay waral nga tayal gàtti itte te doomu aadama yi ñi nga rawante si itte itte mooy lépp nit ki loo toog naan ay yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla bay sa tool waaw. lépp sooy daal mooy taxaraka daal alxaraka boo arab yi dañuy faral di wax naan alxaraka baraka ñu ne yënkatu boo gis gannaaw gi ba euh, barkeen ci njëriñam ci daal. Mhm. waaw bayre bayre moom du dara bayre moom boo ñëwee ñu defal la ko wax dëgg yàlla wax dëgg loolu moom amuñ ci sax ki da nga koy sangoo léegi yàlla dimbale la wax dëgg yàlla yëpp si sungu fi alxuraan lañ koy defee rek si lépp maa farax naa fi kitaab min shay'in yàlla ko alxuraan lépp a ngi ci biir bayre ko soxla da ko am boo am lu ñuy wérdoo am na looy sango mhm. waaw loolu moom garab loolu moom li ma si faj moom yaakaar naa bëri na trop parce que fii tamit nit ki suy dugal dara si biiram na dugal lum xam parce que sunguf du rees chaque jour médecin boo gisee ñi aaye sëriñ ki ngay jox ay kii loolu la parce que dafa indi ay conséquences yoo xam day jur leneen lu ëpp sax li ngay faj moo tax ñun nag luñ ciy faj wax dëgg yàlla si garab ay garab aw sa lay doon wax dëgg yàlla waaw luñ ci nekk sax di kii dañ koy faj mu ànd ak en tànk yi métti ak ndiggu yi métti yëpp daf koy koy traité waale lépp lu mu fekk si biir la koy dindi garab bi moom jógewu Sénégal wax moom dañ ko wàllewaane si biti. Hmm. waaw loolu loolu am nañ si ay tegtal yu saafara booy naan rek bu soobee yàlla yàlla dimbale léegi mm-hmm. waaw. muy ku am jëkkër ku taxaw lépp bu soobee yàlla incha allah bu ñu si jëflante yàlla dañuy dimbale bu soobee yàlla incha allah. Euh, si loolu loolu ñu ngi koy faj si 41 jours 41 parce que saabu si ngay da nga ciy sangu di si naan waaw dafa am lu muy dindi raxas yaram bi dërëj ji ba mu set wecc si biir. Mhm. waaw sport damaa waxoon ne xam nga nit ñi bu dara ñëwee rek ñëppay daw song ko gars yi songoon nañ fi làmb ñi laaj ma ne man duma ma si wax parce que mbiri làmb làmb dafa fiiri boppam. li ma ko waxee woon xam nga làmb da ngay làmbaatu rek leneen nga daj leneen doo daj moo tax azérar ngay gis suñ mbokk yi ba di si daanu loolu la parce que tey damay wax ne ñetti mbir tey mënoo koo xool gëtt na jonn rek làmb taxaw rek nga ne diwaay daan loolu da nga wax sa xaat ñun ñëpp ay amateur lañ ku ne am nga foo far waaw waaye nag ku si ñëw tamit ñu ñaanal la yàlla rek waaw ku si ñëw bi ñu ñaanal la yàlla rek waaye bu desee ñetti fan moom nit mën naa li gis def ay sarax gis xam kuy daan mu xam sarax be xam lépp mais tëb rek làmb ñëw rek nga ne bisimilah diwaay te fekk am na foo far loolu tamit ki ñoo amateur ku ne am nga koo bëgg fii Sénégal la dafa xat a xew mhm. muy waaw loolu ay xeex la rek yi fi yàgg rek xam nga fii Sénégal moom réew mu xat la bëgguñ ko dem bëgguñ ko bàyyi nit ñi dem waaye bu soobee yàlla incha allah waxuñ ko nag ngir dara nag waaye bu ñu ay mbokkam seet see wala ñu ooñu bu soobee yàlla incha allah problème bi jeex tàkk loolu moom man maa ko garanti incha allah. allahumma amin ñoo leen dina kontaan wax dëgg yàlla ndax tamit incha allah bu neexee yàlla bi iznillah incha allah incha allah ñi ngi tàggatoo ñëpp di ñaanal ñëpp di wax ne senegal fii mbiri sëriñ par force nit ñi danañ ko gëm danañ ko def ndax dañ fee am. Cheikh Omar Foutiyou moo fi indi kër goo dem fii Sénégal mi Touba Tivaouane Layène Ndiassane foo mën a dem rek si kër diine bu lim juum danga fa fekk ne moom ñaana ma nga fa chaque jour duñ taay si di ko wax te ñoom wax dëgg yàlla ñoom ñoo ñuy yombalal liggéey bi ñu def ndax seeni lasaraar rek la ñuy demee wax dëgg yàlla di ñaanal ñëpp di yéene ñëpp jàmm tamit di wane nañ bëgg nañ ñëpp te képp ku ñu yàlla booy tamit ñu ngi ñaan say say say say aajo faju jaay rasulullah